ci la am gaañu-gaañu bu ndaw ca match boobee naam football na match boobee ba mu jeex waaye bi ñu xëyeekat la ñu def ay test xool ko xam ne moom blessé na lu mu gàtt-gàtt dina toog fukk ak juróomi fan du dugg ci terrain football muy Robert Lewandowski kon match aller bi du ca bokk jeudi di alxames la Barcelone di fekki Real de Madrid match boobee tamit wóoragul Pedri bokk ca ak Ousmane Dembélé kon xibaar bi nag naqari na lool ci Xavi ànd ak waa Barcelone ndax dooley club ba ma ngay wàññeeku xam ngeen ne Pedri taxawaayam ca club boobee am na solo rawatina Robert Lewandowski ndax Pedri kat ñetti match yëm mujj ca Barcelone Barcelone am na ca ñaari défaite kon nag Pedri su fa nekkul Robert Lewandowski nekku fa doole yi Barcelone dina wàññeeku tey jii nag la ko waa Barcelone siiwal xamle ne doomu Pologne bi dafa blessé dina toog fukk ak juróomi fan du dugg ci terrain football muy Robert Lewandowski. waaye Barcelone li ñu jàpp te di ko ñaan moo di match retour ba le 19 mars dina noppi ngir mën a bokk ca classico boobee waaye bii di ñëw moom du ca bokk muy Robert Lewandowski. te Barcelone tamit war na jàkkaarloo ak Valence dimanche. match boobee Gavi du ca football Xavi tamit dafa am carton du toog ca banc ba Robert Lewandowski yokku ca te jamono ji nag Barcelone soxla na ngir jugaat wéyal ci jaloore ji nga xam ne ca la ñu nekkoon ñoom waa Barcelone gaañi xibaar bi foofu la buuree ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ba ci kanam tuuti ak xibaar yi njëkk incha allah